mais au moins on va régler le problème. am na euh, solo bu baax a baax mi ngi koy wax euh, ci ay euh, kàddoom gouvernement de rupture de sénégalais yi voté Georges Nesta Diop rupture boobu yaakaar na ñi ngi teg ay actes yi jëm ci yooyu la boobu l'essence parce que aussi bu ñuy xool. Euh, bërki démb rek euh, ñu ngi dégg Atepa Pierre Goudiaby Atepa euh, di xamal sénégalais que ni travaux yi nga xamante ni ñu ngi ko doon amal ci corniche bi yu bëri wala yëpp sax dañ ko mujj arrêté pour mën a xool saytu bu baax a baax corniche boobule nan nañ joxe yooyu le terrain balaa sax travaux yooyu di fa jóge alors que corniche bi alalu alalu sénégalais yëpp la. mais boo boo boo demee si corniche bi. Mhm. vraiment nga constaté que ne ce qui se passe mhm. la corniche. Oui. mais mais c'est un scandale c'est-à-dire que Dakar ne respire même plus. yow tey booy romb corniche tu n'as même pas l'impression que fii géej moo fi ne am na am na secteur yoo xam ne boo fa duggee tu ne vois même plus la mer. Mm-hmm. à cause de quoi parce que des gens sont venus xaw ma ban moyen la ñu amee ces terrains là tout le monde se demande comment comment ça se passe. Mm-hmm. c'est des milliardaires ñoo dem euh, yore seen xaalis tabax rek seen yoon nekkul nag ci embellissement de la corniche. Mm-hmm. et eh, je crois que les autorités là yi nga wax léegi Ousmane ko mos na ko fi wax. oui bu mu demee sur la corniche di constater euh, situation bi fa nekk. Mm-hmm. ni nit ñi di jëndee terrain yi di di ko tabax di def lu leen neex des privés yoo xam ne kenn xamuñu fu ñu jógee. dëgg la yéen ils ont transformé la corniche en résidence. Mm-hmm. en en en cité résidentielle je vais dire même ay tabax les immeubles poussent comme des champignons. te kenn xamul nag kenn y' personne pour le dire arrêtez man je ne sais pas qu'est-ce que faisait le régime de Macky bi bi ñuy kii terrain yooyu yëpp. est-ce que ñoom ñoo ko tabax Atepa si boppam il yaakaar naa mos na fa am contentieux sax ak benn. ak ak Aby par rapport ak benn. restaurant bu mu tabax benn restaurant bu mu tabaxoon foofu si corniche bi te elle Aby Aby n'est il y a des de constru comme maisons yoo xam ne en tout cas ñoom comme moom Ousmane Sonko c'est il il est des domaines parce que xam na xam na ko donc yaakaar naa ne dina si jël mesure non seulement nañu arrêté pour l'instant les travaux ba def enquête sur ces la mais encore une fois il faut maintenant euh, ñi nga xam ne dañoo jot a tabax ba pare ñu xool naka la ñuy def ak ñoom est-ce que am na construction yoo xam ne dañ leen a war a détruire quitte à même indemniser ñi nga xam ne peut-être ils trompé de de bonne foi maanaam nga ñëw ñu jaay la terrain te nga xam ne waroo fi tabax parce que des zones non aedificantes yi yooyu ça c'est autre chose mhm. mais bu ñu arrêté ba pare nag deuxième jalon bu ñu war a teg mooy yëpp yi nga xam ne lii euh, vraiment bokk na si lu yàq corniche bi bokk na si lu yàq euh, comment on appelle encore la euh, ce que devait être corniche là ñu xool naka la ñu defee ñoom soit dañ leen di détruire c'est très possible c'est très possible yéen a ngi wax léegi boo demee dans des villes comme ay dans des pays comme ay Maroc ay Tanger Tanger nga ngay dugg seen corniche yi mais saa yi da ngay yaakaar na tu tu es au paradis. Mhm. mais ici c'est c'est tout à fait autre chose. Mhm. <laughs> corniche bi ça mel ni encore une fois rek quartier lañ ko def léegi. quartier la quartier la donc waxuma la ñu arrêter pour l'instant les constructions mais on doit même aller beaucoup plus loin que arrêter maanaam def même des des enquêtes très très poussées parce que loolu loolu mën nañ ko. mën nañ ko parce que encore une fois comme je te l'ai dit le président c'est un agent des impôts et domaines le premier ministre c'est un agent des impôts et domaines enquête boobu moom yaakaar naa mooy euh, nga dénk ab médecin sa sa sa sa sa kii rek sa jàngoro. mu faj ko rapidement. Pape Sané nuyu naa la. maa ngi lay fay ma dama tardé nag yow yow yow yow tardé woo tardé woo. maa ñëwal bi si micro bi. ma jël micro ñëwal fii sa ñëwal fii. Ah. waaw alors ah. Ayoba euh, bokkoon na quand ci liñ ñu doon dikk euh, moom Ousmane Sonko sax wax na ko euh, moom mii dañ jiital gouvernement bi que ni corniche bi dinañ ko saytu. ñi nga xamante ni waruñu fa tabax bu ñu fa tabaxee aussi quel que soit lu ñu fa jot a investir dinañ ko toj bu nekkee teguñu ko ci yoon. waaw ah, xam nga au delà au delà la corniche suñu littoral bi ci boppam la ñu agressé agressé agressé ba fi mu toll nii da ngay da ngay waar nit ñi fii nit ñi dund nit ñi dund à côté sax nous ne sommes pas en sécurité. Euh, da ngay romb foofu gis hôtel yi ñu ngi pulluler foofu doo xam kan moo tabax lan ak kan moo ko jox pour mu autorisation pour mu tabax pour mu pour mu pour mu tabax foofu. Mm-hmm. donc man li ma dégg sànq pour euh, pour revenir sur les propos de de bi Goudiaby Atepa hier. Euh, sànq dégg naa intervention directeur d'Escos bi Sabour Ndiaye. Euh, mu nii dañuy dañuy def état des lieux. Mhm. li tax li waral arrêt des yi peut-être c'est pas une décision qui vient d'en haut sax mais ñoom dañuy def état des lieux pour permettre aux nouvelles autorité ñu xam lan moo fi nekk. Euh, d'abord pour ensuite que ñoom ñu mën a jël ay décisions pour xam ndax dañuy arrêter. Euh, wala dañuy bàyyi ñi nga xamante ni ñooy ñoo nekk ci ci corniche bi di tabax instant bi ñu pour leur leur leur leur travaux mais ñoom nee nañ état yi lii lañu def ba fu mu toll nii euh, arrêté nañ def naa travaux yi euh, mais lii li war a am mooy corniche bi foofu ñuy tabax foofu kenn waru faa kenn waru faa tabax. Mhm. yàgg nañ leen artu spécialistes environnementaux yàgg nañ leen artu ci li danger yi nekk ci tabax foofu noonu après nag état bi fi nekkoon xam nga ñëpp ñëpp xam nañ ni mu doon ni mu doon ni mu doon doxee. Euh, non seulement corniche bi ñu fi doon tabax ay ay hôtel ak ay immeuble mais Sénégal dakaar sax laa wax partout da gis immeuble yi di pousser comme des comme des comme des champignons doo xam xaaj bi fan la jóge ak kan moo ko kan moo ko kan moo kan moo moom lan muy tabax mais en tout cas xam naa ni autorités yi nga xamante ne ñoo fi toog léegi décision bi ñuy ci loolu lañ jëm arrêté li nga xamante ni mooy agression bi ñuy agressé euh, suñu suñu suñu corniche bi et surtout suñu suñu suñu littoral bi Mm-hmm. agression boobu euh, Moustapha bokkoon na euh, quand même wala bokk na euh, quand même ci lu tax ñu jële fi régime bi parce que littoral bi mën nañ si ay manifestation aussi corniche bi wax nañ si wax waxaat lu dul benn yoon que ni régime bi yi fi jot la succédé dañ koy jël di ko saax saaxee ba askan bi sax amatuñu plage yoo xamante ne mën nañ fa sangoo wala sax dem di féexlu jekk yu ni mel mais Pape le constat mooy tey bari na ay euh, sénégalais wala ay Dakarois yoo xam ne dañuy dañuy regretter. Mhm. cet aspect sauvage bi nga xam ne moom la corniche bi amoon ak yenn yenn zone plage mhm. su ma nee aspect sauvage mooy aspe yoo ay zone yoo xam ne kenn aménagé wu ko defuñu fa dara suuf la woon rek ak ñax soo fa ñëwee mën nga daagu directement dem ci géej gi loolu. am na ñoo xam dañu koy regretter pourquoi ñu koy regretter. mooy dañu yaakaaroon ne bu ñuy amee bu ñuy defaraat di aménager. dañuy defar loo xam ne utilité publique lay doon loo xam ne muy man di Jordi Ayoba Pape Sané ak keneen am nañ nous avons les même droits que keneen mais su fekkee dañuy jël li nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk ak fi mu situé ñu jël ko privatiser ko jox ko ay doomu aadama ñu tabax ko ay kër dëkk fa mais c'est ça le le véritable problème euh, boo boo dégloo sax defe naa euh, ci ci li ma dégg démb ay Atepa wax ko mooy en réalité les les les constructions yi ñu arrêté c'est pas état bi def en fait parce que yi fa dañuy jàpp pour ñëpp la même bu fekk état ba fi Macky Sall nekk moo ko fa def la mu fa def bari na bariwul mën nañ ci discuter mais li li jaaxal ñëpp mooy euh, les les domiciles privés yi nga xam ne moom la ñuy tabax sur la corniche. Mm-hmm. te man ça me rappelle bi boobu maa ngi woon journal Le Populaire su ma deful ndànk su ma ay 2002 jàpp 2004 Abdoulaye Wade. Mm-hmm. Abdoulaye Wade. laa jugee Méridien président gis mu ànd ak ci oto moom ak Atepa euh, Pape Diop mi nekkoon maire Dakar. Mm-hmm. ñu topp leen ñun oto bi ñu yoroon. naan fu wàdd jëm ndekete ci corniche bi la jëmoon bi ñu ñëwee mu ak si gaare wàdd mi ngi sol benn ensemble bu xaw mel ne kii lii couleur bii kii sol euh, ayoba wàdd wàtt wàcc dox ak tànkam di xool corniche bi ñu ko Atepa mii di ko expliquer naan ko fii dañ fee ñii ñoo fi tabax ay kër affaire yi wàdd dafa teg loxoom ci gémmiñam mu ne c'est pas possible tudd na sax ay tur ne où est-ce qu'ils ont l'argent pour construire ça mm-hmm. ca ca jamonoy wàdd mm-hmm. Macky Sall ñëw ça c'est empiré ñu bàyyi nit ñi di fa tabax nu mu leen neexe mais man dama naan li Ousmane Sonko waxoon il y a quelques années man loolu laa gëm. Mhm. c'est-à-dire képp koo xam ne dañ la jox suuf. mu leer na yow lii li ñu ko li ñu la ko joxe tegoo ko ci yoon suuf si moomoo ko waroo fee tabax nga dem taxaw tabax tabax fa wax na ne même boo fa tabax ay château dañ ko toj il l'avait dit mhm. Ousmane Sonko mhm. même bu ñu fa tabax ay château dañ ko toj et man dama jàpp ne loolu mooy dëgg dañ ko war a toj parce que lu ñëpp bokk kenn du ko jël aaki moo ko à moins que ñu jaar ko ci yoon yi ñu war a jaar mais li gën a doy waar Pape. tey ñi ngi nekk ci dëkk boo xam ne Dakar. Mhm. mais fépp fu bi am suuf. Mhm. nga xam ne mën nañu xalaat ne fii di d'ici quelques années mën nañ fa jaarale ab tali wala ñu jaarale fa ab berte wala ñu jaarale fa ak saxaar comme wala sax ab métro comme ni muy amee ci yenn réew yi mais nit ñi jël nañ ko tëgg tabax ko dëkk fa te kenn kenn amul droit wax des domaines de l'État du Sénégal yaa ngi wax corniche yaa naa beaucoup beaucoup yoo xam ne nit ñi jël nañ ko tabax fa ay kër dëkk ko li ma waxoon sax ci transporteur yi laay waxaat la même chose mhm. mooy il arrive un moment où les gens doivent dire écoutez on s'arrête on met le bal la balle au centre comme on balle à terre mhm. et on essaie de voir comment régler ces problèmes là pour avancer mais mënuñu bàyyi nit ñi parce que tu as de l'argent tu peux mais Guédiawaye ay filawo yoo xam ne c'était à perte de vue. Mm-hmm. les gens ñëw maasale ko. en à quelques jours 1933 oui 1933. 33 gars yi ñëw maasale ko en quelques jours bu ñu ko maasale woon sax def fa ay aménagement yoo xam ne dinañ fa te mën a tabax ay cité ay doomu aadama yi Sénégal man faa am lu ñu fa dëkkee ba pare ñu bàyyi fa nu ñu ko waxee euh, euh, la nature. Mm-hmm. parce que mën na nekk yaa a de pays yoo xam ne yooyu dafay am la nature ni mu war a nekk ñu bàyyi ko fa nit ñi mën a mën a sauvegarder l'environnement mu baax. mais du ñu ko def lépp la ñuy toj tabax ko ay kër au nom de quoi dama ci waxtaan ak benn sénégalais bu nekk Paris la mu ne ma gis nga réew tubaab bi mhm. commune bu mu mënti doon ak commune bu mu mënti doon dañ naan la y a un dans la commune boo xam ne mairie bi amul droit aménager fa dara mhm. dara dara xanaa jëmbat ay garab pourquoi parce que dañu xalaat ne d'ici cinquante ans peut-être am na seen ay doom yu war a ñëw soxla ab hôpital bu bees. Mhm. wala ab bu bees. wala leneen leneen et ce qui est valable à Dakar malheureusement ci dëkk yi Sénégal yëpp mhm. fépp fu état Sénégal amoon ay suuf ay nit jël nañ ko tabax fa ay kër te teguñu ko fenn demal euh, fii raay yi jaaroon chemin de fer suuf yi mu amoon kan moo ko moom état wu état wu Sénégal demal dëkk dëkk bu la tabax nañ ko encore que Moustapha c'est-à-dire les gens yaakaar naa la bande des filaos. Oui. pas pour embellir hein. c' pour ça c' est pour protéger contre l' avancée de la. exactement les régions côtières. les régions parce que man par exemple euh, boo demee si. Euh, cité yoo xam ne mel ni euh, parce que Guédiawaye am na benn cité amoo Atepa. am hmm. na benn cité amoo 3 foofu ba amoo 3 ba 1 ba. bon sax nekkul waaw 3 ba 3 4 5 ba 6. mais foofu jusqu'à xaw ma jëmbal mais gannaaw la crosse di dem la crosse bande filaaw boobu mais boo ma rombee nga yow boo boo fa jaaratee tey doo mënatoo ko xamee la bande des filao a disparu sur une beaucoup de kilomètres c'est inadmissible mais ça c'est inadmissible donc ñooñu nag dans dans quelques années géej gi di avancé. nangu kër yi nangu kër yi ngeen voilà vous n'aurez que yëpp yeux pour pleurer. ñu ngi koy def ay ran ran sax xam naa ne. alors alors alors alors que là alors que là c'est c'est c'est l'action de l'homme. ci biir bande mhm. mais voilà et pourtant ça aurait été plus simple état bii li ñuy waaj depuis des années des années. mooy wut dëkk bu bees. Mhm. au lieu que ñuy nekk ndakaaru gii di xat-xatloo ku nekk da bëgg tabax ci géej gi mais nañ wut dëkk bu bees. dem tabax yi fa ku am barke am daraja nga dem tabax foofu ñu def fa toutes les infrastructures nécessaires ku fa bëgg a dem dëkk nga dëkk fa ku fa bëgg a liggéey nga liggéey fa mais ñu bàyyi au moins parce que euh, la nature dafa dafa doy waar. am na yoo xam ne bu ko bu ñu ko fi dee 1900 lan nga wax sax. 33 pour protéger géej gi ña ko fa def xam nañ ne filao yooyu dafa am njëriñ. léegi nga dindi ko bàyyi géejawaay comme si da nga ko simmi quoi euh, dindi ay séram ak yëpp bàyyi ko mu taxaw ci mbedd mais lu ñëw dina ko gaañ. la majeure partie cité yi ngay dégg yu bees yi. si zone géejawaay bi. Mhm. xamal na rek si ay filao yu tagg tag tag fa cité yu bees yooyu.